مصطفى إذ جاء يمتار Thank you. لا dañuy def leen nabi am nay من الله ana ñu bëgg sëñ Babacar mer jaatu na na ni waaye mer jaatu na na ni waaye ana soppay mer jaa Tuuba ana e ñu bëgg mer jaa Tuuba ana soppay e mer jaa Tuuba ana soppay e mer jaa Tuuba ku jaaral loo koy sa kaw خير قلب القبول وأعلى الديب والمويسان هم الكرام يا رسول سلنا باب القبول الحمد لله لما خصنا كرما هذا المال

waliyu yëpp kay gaaral Seydil Haaji Maalik waayu yàlla la léegi mu sànni la ba saa ولي léegi mu sànni la saare bul xasuwal li yooye bu kay gaar sëriñ baaba kër waayu yàlla la ah. mu sànni ana taaliba seex bul xasuwal li yooye bu kay gaar alaay mun sor waayu yàlla léegi mu sànni la saare bul xasuwal li

Ganna di wax ci sawrum akobroxam dimle madina yënguy bu rëy gi yaay defal la jëralalu farrango yu guy jooy mar yow say xool ana taaliba seex ya yonnan ba tàllal baaraam ak diggam ak bëgg di wax ci saw ruuxu akobroxam ni te madina yënguy bu rëy diine yónneen ba tàllal baaraam ak diggam ba sa des di wax ci sóoru ak ruuxam ni kéemaan diine bu rëy gi yaay defar laax te laalu far rongoñu bi looy maa yow Seexu Tijaane Seex Tijaan Sëriñ zaaka alladi naa la way def عقلي وروحي وجلاسي وأحداثي سر سما ومسمعي وفؤادي وانبذات يدي مغلتي وإزامي بين الجلاس سق مامي شريف دفني سق تجان شريف منكرا حسب سيق تجاني حزي كباني دعنك خولك هذا فما لسيخ يساني شريف سمام سيق تجان فمنكرا حسب سيق تجاني حزي كباني كسق مامي شريف دفني tijaan sërif samaam fa munkiran xisba seyxi tijaani id yu ka baani da an ka xawlaka haada fama li seyxi ya saani sërif samaam seex tijaan du moroom martabaam beneen doy ni haatami wax na ni moom martabaam giseefu ko sërif samaam Seex Tijaan sërif du moroom sërif samaam Seex Tijaan sërif du moroom martabaam beneen doyini xaatimi wax na ni moom martabaam di seefu ko sërif samaam ku koy bañ ak ko jëw mbam xaadi ne samaam ku koy bañ di ko jëw ab taxee di ñëw na sa yow loo falang falang dana ñëw gaaw a gaaw sa tuubi ko sëriñ samaam sax di jaan ku xas ne ko cas boo waree danga xalal ab mool boo tuul ni len nga lab labaale ko gii kurus ku xas ne ko cas gii kurus ku xas ne ko cas boo waree danga xalala mool bu waxtuwul di la fopp lengalab labaale ko sëb bu mag mag bu mag mag bu mag mag ba nga naw jaccu xaada mu far la daw far di mus na si yow nga al ku xalaale ko saadali yoog karax yoog junay di yoog saxat yoog فديل كل والإنسان خلقاتك بارك الله bu ko defee. am na ñaari fukki yi kii tëbit bi ba teg ca wa am na fanweeri. Xaaji Maam kon nuyoo jar nañuy àgg ci baatu asalaamu aleykum wa rahmatuhu ñett yëpp ngir mu sëmbërtal ci sunu kaw yal nañ ko yàlla defal. nuyoo yi ak ziyaar yi ak wàccuwaay yi ñu di ci jiital sang bu tedd bii di sëtu sayyiduna muhammad te ñu ne bu ngeen dajee ci jotaay boo xamante ni sëtu rasulillahi rax nañ ca bu ngeen di nuyoo na leen jiital ci nuyoo ga ngir seen maam sayyiduna muhammad astuma nekk ku doon sëtu yonent bi ba noppi doon léppay nit ñi doon setu yonent bi ba noppi doon léppay nit ñi kooku nekk boo koy nuyoo nga weesu wa rahmatu wa barakaatu teg ca yeneen ak yeneen ya mu gën a baax yépp yàlla day nangu muy sunu sang bu tedd bi rot ci jotaay bi Serif Ibrahima Haydara Atijaani ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay ziyaar wàccuwaay fa mu gënee kawe ñoo ngi la fay teg li sa maam sayiduna muhammad waxoon rafaahu llahu man arafa qadrahu wa jalasa duunahu loolu la yàlla defal wa tabarakallahu ay dara sërif sunu yaay meer jatu baax léegi lañu ñëw déey jox ñu këyit gu doy ni ñay ne bind ci turu ñépp nga gërëmal ma ñépp te ne waa koñ bi lii dama ko bokk ak ñépp waaye du sama yëf man kese dong mu ne nekk nuyoo yeeg ya ca aju yépp mu ko teg ci loxol sang bii muy Cherif Ibrahima Aidara At-Tidiane mu ne jàppale na ko ci biir jàppale ay njabootam ci biir ak ci biti déy na ma lu ëpp loolu nekk wax na wax yu bëree bëri démb ca xadara ba la tàmbal ak man ne ma boo àggee loo mën ci gërëmal ma Cherif na ko def tey jii ma toogaat fii mu fekkaat ma fii ci jotaay bi déeyaat ma ko ne ma loo mën rekk ci waxal ma baat yu sell kàddu yu rafet ci sang bii sërif Ibrahima Aidara Atijaani nag ma ko defal fa tabaarakallaahu kon xaaji maam loolu yëg rekk ko koy may nit yaay njettu baax nuyoo yaa ngoog teg nañ ko ci loxol sang bu tedd bi di sërif Ibrahima Aidara Atijaani fa tabaarakallaahu nit kuy dimbali jaam yi la kuy jàppale jaam yi la te ku xam yittey jaam yi la ndax jaam yi duñu géej ci keppaaram di ko wax ay yitteem te yitte yëpp da ciy taxaw te kenn du ko dégg fenn kooku nekk mooy nitu yàlla fa tabaarakallaahu ren rekk maa ngi door a am jotaay bu yaatoo nii ma téye rajo ci wetam waaye ren fa tabaarakallaahu ah teel nga aksidi baykatu tàkkusaan nga nàmbal i leeram de tey nga yokki bayam de <laughs> lim ma jox ni mu nuroog sama yére gis ngeen ko waa man fu ma tolloon sax xaji maam waaw ci sërif de waaw ma yeggali ci sërif kon ren ji ca Morola mu ñëwal ñu bis bu tedd te sell ca moro la mbooloo mi yépp teew yàlla atte yemu ca ba bis ba weetu weesoo mu maye ay xale yoo xamante ni cër dëkk ba ñépp dañ leen xarafal xaaji maam góor kenn fayul dara mu jaarale ko ci loxol alxaaji suur géey mii ak ñi mu ko àndal 26 personnes yoo xamante ni ca dëkk ba ñépp ci ndigalu sang bii Cherif Ibrahima dara lañ leen xarafale kenn fayu ci dara li ci gën a yéeme mooy dëkk bi foo tourné mu ne lii de benn sëriñ mësu ko fee def ma ne ko ay dara rek a koy def de du fi xewati de benn bii rek lay doon foo tourné ca dëkk ba ñépp loolu la ñuy wax ñu ne day sëriñ si day daan nañ fee ñëw waaye jëf jii day surtout yonent bi rek moo ko fi jëf fi mu toll nii morolaa yëpp jëf jëfay riir man nit ma baadoola lool dëkk bi ma dëkk rek laa yem génnee ca xale yépp yeneen dëkk yi ma wër dégg ko nekk ñépp ngay soow nekk nee na ñu déwén ñoo ngi xaar waaw waa ñu yokku de ay waay alhamdulilahi rabbil alamin waaw nee na ñu yokku rek déwén Mansour Gueye ñëw ak ñam ko àndal taxawee ko ni mu gën a rafetee nekk dëkk ba ndeysaan yàlla yàlla am ñu mu nattu dama jël big ak fooy baaba sérif di wër ci nit ñi pour ku bëgg doomam ñu dugal ko ci biir xarafal ko am ñu ma dem ci ñoom def ma wóor ni du du nawet bi ki ñaan a tax man def ma wóor dama toog rek ne leen seen njaboot laa bëgg a bind dugal leen ci ñi ñuy xarafal am ku ne noo mag ñi dañu daan tere ko tuur deret ci nawet kon du taw ma ah. te daf ma wóor ni ki la mais xam nga lan la ñu yàlla nattoo xaaji Mansour Gueye bis bi ñuy xarafal xale yi Mansour a ngi nii première xale bi ñu xarafal ndox mi soobu yàllay taw ñuy xarafal xale yi muy taw rek ndox mu bari laajal xaaj man suur a ngi ni toog muy taw ndox mu bari ñuy xarafal xale yi deret bay wàcc ndox may wàcc man leen yàlla teggi na seeni wax ba ñu àggee kër ga ma dem ca jàkka ja ne ñoo ngi gërëm ñépp nag ci xale yi ñu xarafal tey ndeysaan ñi ñi waxoon ni bu ñu dee xarafal xale yi ndox du wàcc yàlla day moo moom ndoxam xam nga yooyu duma ko bàyyi man leen yàlla de moo moom ndoxom xale yi kenn la leen te ndox wàcc na ñi ñu jot a xarafal nekk sant nañ leen gërëm nañ leen ñoom it ñoo ngi sant waaye ñun ki ñu war a sant mooy sang ba sërif Ibrahima Aydara Atijaani ma wax ko ca jàkk ba ñëpp dégg ko man leen ku moom ndoxu yàlla yàlla moom ndoxam ngeen naan xarafal ndox nu du ñëw fa law yooyu aada nañ ko di ba ku baax la ak lu nit mën a wax ci moom boo ko laajee loo ko xamal dala naan déet mbaax ak lu mën a xew kon ñoo ngi gërëm mbooloo mi yépp di nuyu bu baax imaam si ziyaar ko jox ko wàccuwaayam ñaanal ko yàlla subhaanahu wa taala yal na ko yàlla dëgër mag mu baax la mag mu teey la gune du wax yarub mag waaye mag mu yaru la fa tabaarakallaahu si ñoo ngi lay ziyaar bu baax a baax jox la sa wàccuwaay nuyu sunu bàyyi nekk ci kaw yépp baay baara wan ñoo ngi koy ziyaar sërif ñoo ngi lay ziyaar fa tabaarakallaahu ziyaar suñu bàyyi yépp waxtaan ci lu gàtt nekk door a tëj fa tabaarakallaahu nuyu mbooloo mi yépp nekk soxnaa su Juuf ñoo ngi lay nuyu te géej la gis lool fa tabaarakallaahu imaam Yuusufa Géey Jamil ñoo ngi lay nuyu jox la sa wàccuwaay sama nijaay alxaaji maam góor géey ñoo ngi lay nuyu jox la sa wàccuwaay way yi neex na lool fa tabaarakallaahu yal la yàlla defal jàmm xaaji Omar Diop fa tabaarakallaahu maa ngi bëgg waxtaane fukki yëf te joxe micro bi al istiqaama laa bëgg a waxtaane al istiqaama mooy tegu ci yoon jëm ca yàlla bañ a teggee ko ci yoon ba ba àgg ci yàlla benn borom xam-xama ko bind ci téere bi ñuy wax alfu laylu wa layla boo àggee ci téere boobu borom xam-xam bi dafa ni alaamatu istiqaama asrata asyain mu ne màndarga yi jub jëm ca yàlla fukki yëf la ñu ne ko ban moo ca jiitu mu ne al ictinaabu ani suhriya imaam yu su dégg nga boobu al ictinaabu ani suhriya xam nga luy loolu xaajimaam mooy yéej ji waxuma reetaan de yéej ji laa wax di yéej ji nit yàlla def koy bañ xam nga mooy lan xaajimaam góor def loo xamante ni xaw naa neexi ree waaye la mu def xaw naa tegewul ci yoon am koy xool xaaji maam góor ba ci yàgg xàqataay saboote ko mooy yëjji nit xàqataay te affaire ba ñorul pour re nga ree ba daanu bërëngu jógaat toog xoolaat xaaji maam mu xool la nga bërëngu waat jógaat toog loolu mooy day merloo nit mooy yëjji doomu àddama yàlla nee na fekk bàyyi woo leen ko du ngeen gaaw a àgg ci man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 ee eh, ñi dugg ci daairatu liimaan muy daairatu ngëm yàlla yoonu ngëm yàlla laa yasxar bu leen yëjji xawmun aw nit min xawmin tukkee ci nit yàlla nee na wattu leen ko di saboota doomu aadama di yëjji doomu aadama di ko reetaan reetaan bu ñor yàlla nee na wattu leen ko laa yasxar xawmun min xawmin ñu ne waaw yàlla lan moo tax ñu koy moytu yàlla ne aasa amaana asa xëy na an yakunu ñu nekk ñoom góor ñooñu ngeen di yëjjantoo ci seen biir xayrun minhum waaw wa allahu yastahzi sang bi nee na yastahzi mooy yëj di yëjji doomu aadama di reetaan di reetaan te tegoo ko ci yoon am reetaan boo xamante ni nga def ko ba jaaxaan te tegoo ko ci yoon yàlla nee na al ictinaabu ani suxri ya na ngeen ko moytu yàlla nee na même jigéen ñi na ko moroomu jigéenam moytu ci moroomu jigéenam seen nit mu sañ sa bay dugg ci tànt teg musóoram nga ne ah sañ sa ba rafet na lool waaye musóor ba day na mu ko ajee bu ko wengaloon tuuti lu sa yoon saf na jëkkëram lu sa yoon Hmm? yàlla nee na ba ca tegu nag wala tanabazu bil alqaabi ñu ne yàlla loolay lan yàlla comprendre gars yi ñun ñëpp la yàlla comprendre yàlla nee na bàyyi leen surnom yi ngeen di wootantee ci seen biir baabakar ñu naan Babs dem ba àgg yowmal qiyaam ñu naan ana Babacar ngay xaar Babs doo am àjjana de moo tax yàlla nee na tur yooyu bàyyi leen ko bisal ismu yàlla nee na tur yooyu bon na yàlla nee na faman lam yatub ku ko tuubul fa ulaa'ika humu zaalimuuna yaa ngee tooñ tooñ yàlla nee na te soo sa tooñ du tege ci yoon yàlla nee na bi ko ñaareel mooy al ijtinaabu ani suu'i zanni hajma ñaaw njortu ci nit ñettu leen ko bàyyi leen ñaaw njortu ci nit yàlla nee na inna ba'da zanni ismun yàlla nee na lenn ci njortu yi bàkkaar la waxul lépp inna zone zanni ismun yàlla waxul njortu yëpp bàkkaar la xam nga noo koy misaalee xaajima saa yoo xëyee dem liggéey ji am góor goo fekk sa kër mu teg ñu tegal ko attaaya di ko njaral kooku xawala ñaaw njortu ci moom ba balaa ngaa trouvé lu muy wut ci sa kër boobu yàlla bëgg na ko de inna ba'da zanni ismun yàlla nee na lenn ci njortu yi bàkkaar xam nga ban moo ci teguwaat xaaji maam al ijtinaabu ani lisaani yàlla nee na wattu leen làmmañ yi ci deru gor yi làmmañ yi alxaaji Mansour wax na ko kuffil lisaana kuffil lisaani wala tulliqu ahadarin def leen ni ñu màggal bàyyu xalifa bi sëriñ Mbay Si Mansour alxaaji Mansour nee na fekk leen làmmiñ yi ci deru gor yi démb rek sang bi mu ngi koy wax nee na maamam Sayyiduna Muhammad nee na bari na kuy këpp kanamam ca jaaxal na ma ëllëg ngóobitu làmmiñam moo ko fay dugal. alxaaji Mamadu Si Maalik nee na ku soli saali. Sayyidul Xaaji Maalik baayam moo njëkk a wax ni lisaanaka in atlaxta yàqul ka Maodo nee na ku boyal làmmiñam lu ñor nga wax lu ñorul nga wax mu tëj lu la kaso. gis ngeen senegal ku sedd nit ba tàyyi ñu tëj ko kaso di seede di seede ba mujjee kaso waaye diw dafa yaru du wax nañ ko tëji ji ku ko mës a gis alaaji Mansour nee na fekk leen làmmañ yi te ngeen bàyyi wax lu bon jóge ci làmmañ alaaji Mansour nee na ay waay baleen rambaaj yi an namima nekk ci diggante ay gor di yàq ba seen diggante yàqoo la la waaj benn waay xaajimaam benn waay da doon jaay benn jaam muy wër di jaay jaam bi te naan jaam bi benn sikk la am benn buur gis jaam bi ne soxla naa ko waa ji ne ko benn sikk la am du ma la jaay loo xamante ne dafa am sikk te waxuma la ko ëllëg nga gisal ko sa bopp buur bi ne ko luy sikkam mu ne du wax dëgg diggante bu mu gis yàq ko ràmbaajkat la du wax dëgg buur bi ne ah boobu boobu jikko day yomb naa dindi jaay ma ko buur jënd waa yóbbu ko ca pale ba waa ja toog ba ci yàgg jikkam ñëw xam nga boo tàmbee rek boo tàmbee xam nga jikk ca ñëw mu songo buur daal dina buur waa dëkk bi séen naa leen sànq ñuy réunion di préparer pour ñëw daanal pale bi ci sa kaw buur na loolu mënul leen dëkk bi maa ngi leen bàyyi ñuy attaaya ca pénc ma mun a buur noonu la demee préparé sordaal yi buur préparé ñëpp ñu sox seen euh, fetal yi taxaw di xaar gaa yi waa ji génn daw fekk gaa yi attaaya mu ne leen pale baa ngee daanu ci kaw buur jël leen pikk ak peel yi ngeen dimbali ko gaa yi jël pikk yi ak peel yi di daw jëm ca pale buur buur na waaw la waaj waxoon am na génn leen ngeen sokk ci seen kaw ñëpp génn sokk ca kaw gaaya gaaya dee waaj a taxaw ca kaw montagne ba woo buur buur buur ne ko labbayka mun a rey naa xaaj bi bu déwénee ma yeggali xaaj ba ca des ma ne ko koo fay fekk ñëpp jeex na alaaji Mansour nee na rambaaj bi ak wax lu dul dëgg ak doxum yoor yor ci këru jàmbur yi bàyyi leen ko xoolal wax jooju la sang bi tëjee kàddoom démb ca xadara ba mooy laabal leen xol yi démb dafa ni turu yàlla yi bëri na lool waaye ku laabal sa xol boo ci bëgg yàlla def ko ca alaaji Mansour moom lay wax nii démb aaya gi mu indi mooy illaa man atallaahu bi xalb salim noonu la ko indee ca xadara ba démb mu ne képp koo xamante ne yaa ngee wut sa borom nga dem ca ak xol bu set wecc téyeloo kenn dara iñaane woo kenn dara soxoore woo kenn dara lu waay am nga yéene ko ko loo am doyloo ko nga àgg ci yàlla déglul alaaji Mansour nee na wa taxiril xalba ay waay laabal leen xol yi min xeq din ci mbañeel ak kiñaan mu xam ni bu ko toppee di dem misra ubi day damm ci wàllu bayaan mu ne wa kullu wasfin zamimin baynal aqraani bépp melakaan boo xamante ne dañ koy ŋaññi ci doomu aadama teg ko ci suuf nga dem jaamu ji yàlla wa aasibin nafsa fi dunya muhaasabatan déglul alhaji mansour wa xaasibin nafsa alhaji nee na ku xëy suba dund ba ngoon war a tëdd boo jaaxaanee ci sa kaw lal laata ngaa nelaw lan sa bopp foo jaar ci bëccëg bi ñu ne ko ndax lan mun a jaaykatu bitik sax bu wàccee day la alalam door a ñibbi. alaaji Mansour nee na toogal nga xool bëccëg bi foo jaar ndax yàqoo deru doomu aadama ndax iñaane woon nit ndax amul ku la romb nga teg baat bu safaanu ci kawam nga seet sa bopp lan nga jaamu yàlla ci bëccëg bi ak yan rafet rafet nga def ci bëccëg bi nga seet ko ba mët sëg ngay door a am droit mën a nelaw. wa xaasibi nafsa fi dunya muxaasabatan tarbax xabla alqiyaamati tarbax duna xusraani mu a li jiitu yowmal qiyaam yàlla di la réglal réglal sa bopp ci àdduna nga xam fi ngay teg sa tànk boo àggee ci kanamu yàlla bañ a sonn mu ne régla ba gaaw nga tàbbi biir àjjana alaaji Mansuur nee na boo bëggee loo teg nee na yaakaar naa ci yàlla subhanahu wa taala man alxaaji mansour bal qawmi góor bu yéeme allahu akbar alaaji mansour nee na di tudd yàlla di tudd yàlla dafay tokkontol ci sama biir xol naa la jox lu tuuti gis nga boo miinee tudd yàlla da dem ba ci yàgg mel ni sa xol dañ ci gas benn teen booy tudd dafay mel ni ndox mi dafay rot ci biir par toq nga koy yëgaale neexaay boobu nekk alaaji Mansour nee na lan la wax waskurhu waskurhu yaskurka fardan aw la daa mala in fi sirri wal i'laan déglul bayit bi alaaji Mansour indi na xadratu jumaa ci benn bayit mu indi ci wasifa ak lazim ci benn bayit nëbb ko ci biir ne comme ni yàlla indee Ousseynou ak Assane ak Fatima ak Aline ci alquran nëbb ko gaa yi Alaaji Mansour ne waskurhu tuddal yàlla mufrat la muy kenn kon laazim ñëw na yaskur ka yàlla amul jotu toog tudd dit mu yëkkati la booy tudd yàlla yàlla di la may nga yëkkati ko mu ne yàlla amul jotu toog. di tuddaat kurus téye ci loxom di wirdi naan diw yàlla na am teraanga yàlla amul jot boobu waskurhu tuddal yàlla yaskur ka yàlla yëkkati la fardan muy laazim aw la daa mala in muy xadaratu juma wala wasifa muy mbooloo laa tansa rabbaka fi sirrin wa fi alaaji Mansour nee na lu mën a xew jaam du fàtte boromam ku fàtte yàlla rek ànd ak iblis alaaji Mansour nee na moo tax jaam du fàtte boroomam moo tax benn waay dafa taxaw di waaraata di waaraata di waaraata di waaraate di wax ci diina naan bu leen fàtte yàlla bu leen fàtte yàlla bu leen fàtte yàlla ba ca des benn waay jóg taxaw ne ko nan la ñuy fàttalikoo yàlla nekk te bañ koo fàtte mu ne da sax ci li la yàlla sant bañ a def li la iblis sant mu ne boo ca yàggee óor bu ne saxal nekk ci yàlla ay boo ànd ak iblis di dem ba ci yàgg yàlla seen diggante dafay dàq wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni xaaliqu basaran min at-tiin fa izaa sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqa'uu lahu saajidiin fa sajada malaa'ikatu kulluhum ajma'iina illaa ibliisa abaa ba noppi wastakbara wa kaana min al foofu ngay xamee ne nag yàlla nganda piir la iblis a ngi takk ba ne rip yàlla set wecc waaye muy jokkalante ak iblis ay kàddu xaaji maam muy jokkalante ak iblis ay kàddu xaala yaa iblis maa mana aka an tasjuda li maa xalaqta bi yadaya astakbarta am kunta min aali iblis na yàlla xaala an naa xayru minhu baat booboo yàqal iblis an naa xayru minhu yàlla ne ko ndax lan mun a xalaxtanii min naar yàlla ne ko fu ma ko bindee mun a wax xalaxtahoo min tiin yàlla ne ah iblis yaay lijjanti fi ma bindee maam aadama ak fi ma la bindee fooy reeree iblis ne ko ci kër gi fooy añee mu ne ci kër gi fooy ndékkee mu ne ci kër gi njoxonal bu fi des yaa koy lekk yow iblis faxruj minha génnal sama gàlle bul toogati ci kër gi de min minha fa innaka rajim yaa ngi noonu wan a ginnaaw di dem waaye fett bu la dal man la wa inna alayka laanati ila yawmi diin oto boo dégg muy riir ci sa ginnaaw mën a maa lay wër iblis xam ni yàlla kaful mu ne xaala rabbi fanzirni ila yawmin yubaasuun yàlla ne ko xaala fa innaka min almundarina illa yawmin waxtu maxluul iblis xam ni la sanga ba waxoon ñëw na mu ne Iblis aarifu billahi la moo tax mu ñemeñ a wax yàlla xaalafa bi izzatika ah dafa xam yàlla moom la sang bi di wax Iblis aarifu billahi la ku xam yàlla la moo tax mu ne yàlla xaalafa bi izzatika yàlla ne ko ah mu ne la ughwiyannahum ajmain xoolal dafa gëñ. yàlla ne ko ah da génn géñ boo géñee itam la am la am na jahannama minka wa min man tabaaka minhum ajmain ah yàlla xam peeri waxin imaam yi su dégg nga baat yooyu iblis moo ne yàlla la la uwiyannahum ajmain naa leen gàllankoor ñëpp ñëpp ba kenn du ñëw ci yow moo tax keroog bi nabi di juddu iblis yooxu na ba alquran di wàcc iblis yooxu na keroog bi sayyiduna muhammad faatiha bi wàcc ci moom ànd ak bismillah yi iblis yooxu na waran na taran na iblisu